jàng bi doxatul nel pa banalisé sama waxtu tekki jot na te di yoon ma koy banalisé bu jaree jóg wari journal yee dang ci buntu yi siini sancama waaw soxna mi min dañuy santaat yàlla bu baax a baax di julli si yenente bi sallallahu alayhi wa di sant si ñaari wayjur di ñaanal sama sëriñ Thierno Ahmad Sabali di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ba ànd ak wér jàngaluma rek bayima non mu ngi may ñaan bu baax baax lepp lu nekk rek mu nekk ci lepp lu def rek daf may wo naan ma ñewal kër ga mhm. mu defal ma ñaan yedd ma xam nga mhm. di ma ci yoon bu baax xam mu non na ma jangal rek mu bayima non ma dem di tëñax tëñaxi ah, mais rek bayima non mhm. daf may wo chaque instant lepp lu nekk rek daf may wo téléphone naan ma ñewal fi parce que mom sama sama bayu xol la mom la xam fi ni mom lañ ma jox mu yar ma mm-hmm. jàngal ma alxuraan def li ci war waaw jàngal ma àdduna daal xamal ma lu bari ci àdduna nag lu bari la nga xamante ni xaw ma ko ci mu xamal ma ko maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ko gërëm mm-hmm. di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaw moom ak njabootam ak ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw di ñaanal suma yaay nag mm-hmm. Adja Sokhna Fall <laughs> Kau kenn la ci mën hmm. quoi parce que lépp moom la waaw lépp moom la ak doomam ju baax bu tudd mooma mooma béy sama ñëw fii kookoo ko waral waaw sama ñëw fi ni bu amee mhm. yàlla ak jëmm jooju la di nit ku baax mhm. ku yaru ku yaatu ku tabe mhm. ku mën a defal nit waaw ñu xamante nak fi ma doon liggéey mais xam nga yàlla ya boole ñu ñuy ànd ànd bu sincère ba tey jii lii am am li xew ni yëpp mom moo moom moo ko waral moom moo béy l'international mang koy ñaanal bu baaxa baaxa baaxa baax diko di ñaanal yalla defal ko jamm mom ak rakam khalifa ah mawlud béy xale yi ci kër gi ñëpp ñëpp dal wa kër gi ñëpp mang leen di mang leen di sante di leen di sama yaji mhm. ji na fal ndax te mom ak borom kërëm mhm. ñew na fi ñu yaatal ma mënoon mhm. nañ ni gan la xam nga mais ma ñew ñu yaatal ma ñu def ma ni sen dom dal lepp ñom la mang ngi leen di sante di leen di nuyu nak euh wa Kolda. <laughs> madam madam xamna namu nga ah namu na ko lol fani la fa jógee mais moom. <laughs> waaw doyaloo waaw ko <laughs> xam nga moom ay xeetu baax baaxam. waaw dégg nga waaw mm. namm ko lool di ko ñaanal xam nga mom tamit xam nga. Mm-hmm. muñ na xam nga. Mm-hmm. diko ñaanal ci séem bi yalla defal ko ci barke. may ñu njabot gu xam nga njabot gu barkel xam nga di ñaanal ñep di sante samay xarit. Mm-hmm. samay client surtout ñooñu ci samay client moom awma seen fay parce que lépp ñoom la <laughs> ñoom ñoom xam nga biñ jàppee ba léegi bàyyiwuñu xam nga ba pare dañuy ñëw di ma wéttali yenn saa yi mm-hmm. xam nga liggéey bi du chaque instant lay dox nit mën ngeen am yeneen relation mm-hmm. par rapport maanaam bu dul liggéey bi sax da ngeen am ay relation mm-hmm. loolu mooy àdduna parce que métier bi mën na am fu mu yem après da ngay demaat nekk ci leneen bu ko yàlla dogalee mais di leen ñaanal daal mhm. yàlla defal leen jàmm di leen wax xam nga kontaan naa si ñoom bu mhm. baax a baax a mhm. baax di nii ko nga xamante tamit kenn la ci man man kooku laa def suma idol muy suma benn mag bu mu bokkal ndey ak baay mu ngi tudd Moustapha Balde di suma mag moom tamit suma suma carrière daal participer na ci lu bëree bëree bëri bëri di ñaanal suma mag ko nga xamante man moom laa def idol ko nga xamante ni man ak moom ñoo bokk ndey ak mu ngi tudd Moustapha Balde mu ngi ba Saint-Louis mom fofu la jangé instant hmm. yi mu ngi fofu di jangalé e, hmm. di jox ay cours xam nga hmm, professeur université la quoi di ko bax mom la def suma idole parce que mom tamit bokku na ci participer na ci carrière bi dal ci carrière Nermar bi dal def na ci lu béré béré béré waaw ba ci sama jang ak lépp lépp dal xam nga bàyyiwuma ak dara daf may conseil di mo xam rek di ma tek ci yoon bu baax dal gëm na ne dal budul pa bi dal mom mo fi nek parce que mom moy suñu grand xam nga di ko ñaanal moom tamit lu mu bëgg yàlla defal ko ko di sant sama famille ñëpp nag bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn ñoom ñëpp waaw ba ci samay mag samay sœur ñëpp daal maa ngi leen di sant di leen gërëm mm-hmm. di la beralaat nuyoo nag mm-hmm. <laughs> di sama mag ju baax iya, falu, ah borom yoonu ndam TV di la iya, ñaanal iya. xam nga yàlla defal la jàmm yàgg seen waa télé xam nga defal la xéewal dal waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm xalifa ki ma nekkal ci place bi tamit sama xarit la doomu Adja na Fall di nit ku baax xam nga moom tamit daf may jàppale si liggéey bi dal, waaw mm-hmm. Neymar bi daal waaw sama frère la mm-hmm. Neymar bi dal, yaatu na <laughs> waaw yaatu na lool sax mhm. waaw di gërëm Modou mhm. ak Abdou baax Dabaax mhm. Béma xam nga ñii ñëpp dañoo bokk ci samay client ya nga xamante ne xam nga biñ jàppee ba léegi bàyyiwuñu waaw di nuyu di nuyaat madame waaw madame madame beral nañ la nuyoo de madame moom maa ngi koy nuy bu baax a baax madame beral vacances yi dafa neex non vacances moom macha allah bi ma demee moom toppatoo na moom bu baax <laughs> di ko nuyu madame madame dinañ ñëwaat ko waaw amul problème maa ngi leen di xaar incha allah rabbi di ko nuyu ak samay goro mm-hmm, ah, ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu mm-hmm, baax a baax di leen mm-hmm. nuyu di leen santaat daal di nuyuwaat àdduna di wax ñu ñaanal Neymar waaw waaw xale la te waaw bëgg na dara di woo autorité Kolda nag ñoom maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci Neymar bi waaw ñu ñëw jàpp ci liggéey bi daal mu ñëw jàpp ci liggéey bi parce que ñun lii kese la ñu am ah. mhm. waaw ñun bu ñu nekkee si dara ñu ñëw mhm. jàppale ñu si parce que mhm. tey jii ñoom ñoo ñu fa toogal ñun ñoo leen toogal fii nii ñoom bu ñu soxlaa dara ci ñun jeunes yi la ñuy ñëwaat kon bu buñ gisee ay jeunes bëgg mm-hmm. liggéey xam nga mm-hmm. bëgg tekki seen àdduna bëgg a tëral seen i mm-hmm. wayjur yaakaar naa ñoom war nañ cee mën a participer te ñun loolu kese moo ñu amal importance di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm di nuy suñu maire Mame Boye jaaw <laughs> di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko <laughs> ñaan yàlla defal ko jàmm waaw di nuyuwaat ñëpp daal waaw di nuyu ñëpp ak joxo ma lekk ma regg ba noppi bëgg ma sekki comme si yéena ma sàkk lii mënoon a ñàkk maa modundu ala Buura ki dagam, risara ki ponyam Wasara ko akim mbokam serin bi deko kopam Chilo ko politician do komp Seni gemu maaf tero flick rap When you feel ay tak deri daki dilim krim dorak dir selapir Kadu di jeep dan di tàng beri di taa rongan di tuuru jarul di laaj xam nga judi taa juddu ci ndóol maa ngi ci ndóol baagan di tóol ci xool bu di jeep dan di tàng beri di taa rongan di tuuru jarul di laaj xam nga judi taa juddu ci ndóol maa ngi ci ndóol baagan di tóol ci xool fii dafa cool ma wokk du la xuri yeewu suba julli fippu xabtalu génni fu waa nee ma wëri ràng nañ ma ay saak ay ciina ki boodi coono laa ko ci cëri di feeñ ba ci bëti ngarale ci tali sarale ci këri sama baat danga koy dégg ci biir ci biti ay wa jaay fi dëkk bi lootu si sant Juuf jomba njaay ma dégg ci bopp yaakaari tas laajal kaay xëy wako yo mbunama amkomo mojafe gorko yo bunama si jayi kafe sasumay jeri di jeli gorko la teg gementu bagne do tedi ndax bëgg Halis ñefe ne kanye bor yi mafai. lebon ma fay man pour ma fàtti ma sacrify never do ma jóg ci try maama ñaana ma waay bu di jiib dan di tàng bëri di ta, rongan di turu jarul di laaj xam nga lu taa judd ci ndóol maa ngi ci nakar ci xool di jiib dan di tàng bëri di ta, rongan di turu jarul di laaj xam nga lu taa judd ci ndóol maa ngi ci nakar ci